لمصرفتنا لمصرفتنا جلي واجبه بجسوف laa ilaaha illallah loo yëg loo yëg. loo li nga yëg rek laa yëg. man bokk ñu yëg yëg. ndam rek ndam rek ndam rek laa gis gisuma leneen. mais Lac bi nga gis daa mel ni tey da nga koo yëg tey taw. non dafa dalal suñu xel rek mbër mbër bu defee li ko war ñuy ànd moom seen xel dafa war a dal loolu la moo tax ñëpp nekk ci ginnaawam. kat kat kat kat dernier combat bi muy bëre yóbbuwul lii moo tax moo xel dal. nga itam fi nga ko bàyyi woon bi nga ñëwaatee bi nga ko fi fekkee. waaw dégg lu ma la wax combat yi ñu mës a préparé yëpp ñi nekk ci ginnaaw Gris Bordeaux nekk ci ginnaaw Tapha Gueye ñoom ñoo nekk ci ginnaaw Lac Rose parce que parce que da leen war da leen war da leen war da leen war ni bés bi bëgg na ko te bëgg ci am ndam moo ñëpp ñëpp jàpp ci barke dem rek président Mamar Ndiaye ancien président écurie Fass tànkam diis na ay responsable la permettre ko sax yenn yi mais dem dama dama ba timis mi ngi fi xam ne làmb ji équipe yëpp ñu ngi ci ginnaaw Lac parce que combat bi daf ci ànd ak fulla ak fayda ak détermination te loolu mooy dalal xelu ay supporter loolu moo dalal suma moo dalal xelu Tapha Gueye moo xoolal moo dalal xelu bépp bépp supporter boo xam ne da nga doon nelaw ñëpp a yeewu loolu nag euh, Lol, loolu nag succès la ndam la yaakaar la parce que nag coolu coolu lu muy bëri yëpp sangu beeg takkaay beeg naan beeg yi am solo waaye nag liggéey bi mu njëkk te liggéey na moo tax suñu xel dal kon yow xalaatoo Fils de Balla lépp la dara dimanche ah xalaatoo Fils de Balla lépp la ko dara dimanche li am tey nii su ko yóbbu woon ci ay cinq derniers combats yu mu bëre xaw ma luy xew de waaye du demee nii kon boog sant yàlla am nañ ci yaakaar lool ci des na dañ koy dénk yàlla yàlla na yàlla sa way wala sa xarit sa doomu ndey mu ngi jëm ci combat Dimas ak Fils de Balla jëlon na la fi nga ne ma combat bi mu jëbëre ñaka paré ko daan ndax bi yoon paré na waaw bi mom nous sommes à 100% uh -huh. yalla rek mo ci des -huh. ndax waji japp na né dimas dina am lu ko -huh. waaw parce que grosse bi mu jëlon ak bi mu nara a dimas dina am wuute te uh-huh. loolu nak ñu ngi ñaan yalla mu yobbu ñu ci ak uh -huh. allah uh-huh. mm. lan moo tax nga dina am lu ko lu ko metti dimanche. non parce que man lagrosse bii nee na lagrosse ba woon la soxla. te man lagrosse bi moo ma gënal ba woon. bii la gënal ba jukk ba. téeméeri fukki junni yoon bii moo mën boobu fuuf moo tax ñu ngi ñaan yàlla defal ñu sutura yàlla mi am sutura yàlla nañu yàlla defal sutura may ñu ñor. kon yaakaar nga ne Fils de Balla mën dab doole lagrosse dimanche. waaye loolu mënul nekk ku dul moom sax mënul nekk. te le jour ji lay comprendre incha allah. mais man dama ko dégg moom ci biir waxam moom moom en tant que xale sañ-sañam la bëgg a fii xale amu fi ñun ñëpp ay moroom lañ fi sa baax la fan la mën nekkee xale ci kanamu Lac fii ñun ñëpp ay moroom lañ ñoo fi nekk di xale xale lu rek mais le jour ji yàggatul deux jours si des ñu ngi ñaan yàlla ci barke Cheikhou Tidiane yàlla defal ñu ndam lu sedd. waaw mais adversaire bi amuñu dara lu ñuy calculer si moom te bu bis ba jotee la nga xam ne dañ ne dafa bëree ba jeex daanu. est-ce que dimanche bu combat bi yàggee. waaye la grosse défaite yi ñuy lim yëpp ben du ci défaite Moussa Ndoyo Kouwen Seck la grosse bo boo amul sax 30 pour cent di bëreeg ñoom te kenn daanu ko ci mom moy bëre ba sol nu tëddal boppam mais bi nous sommes prêts te inshallah allah rabbi yàlla daal moo si des yàlla nañu yàlla defal. sutura bi ñaata pour la bi ñu ngi si 100 pour ah. waaw. yow sa donc combat doomu dangu fa ci tollu non je suis prêt boobu tamit ñu ngi xaar mois de mai la des na. mais ñu ngi préparé incha allah. Mm-hmm. bu baax a baax. am na date du mois de mai. waaw le 26 mai incha allah waaw. Mm-hmm. am na solo léegi looy wax waa Fass yi kon. supporters yeeg wa waaw xanaa di rek wax waa NGB nañ génn. waa Medina Fass Colobane Gueule Tapée di remercier waa écrit su sunu papa yi fi nekk père Tafa Gueye père Kati père Ibrahima Mbaye président Abbas Gris Bordeaux ak tous les lutteurs ñoom Serigne Ndiaye ak ñëpp ndax wax deug yalla say taxawul nañ ko ci combat bi bu baax a baax di ñaan yalla nak yalla motali yene yi. contane ci jaajëf ngeen. Ibra Ibra Ibra Mbaye ngi ne la toog direction technique Ibra Mbaye ngi ne toog Mohamed Ali Ndiaye mustapha Gueye l'entraîneur Amadou Kati Diop mais mais ma dem sa entraîneur per Kati per maa ngi lay ziar. lo lay ziar. ma nga jam ngi ci jam yakarna ne Lagros yene a ko yor ci écrit bi combat am passé. da nga ne woon ma préparation ba mais Lac bii war a bëri si dimanche préparation bi maanaam ndax préparation bi jaar na yoon bi yoon berkat yi. préparé nañ ba pare. préparé nañ ba pare. préparé nañ si <laughs> ah, des. dem dem sotti rek kon yow bii yoon maanaam sa xel dal na ci moom. dal na bu baax a baax parce que entraîné na. yaa ko entraîné. léegi eh, Moussa Ba ko entraîné. waaw ah, Moussa yaa ngi fi ngi fi yoon waaw. di xool. ndax li nga gis ci moom doy na la. baax a baax. Ah. muy bëre xale boo xam ne du ñeexu ñebbe gis nga ndam yi mu jóge muy généralement muy xale bi Fils de Balla. xaw ma ko. xam nga Fils de Balla. berkat yi mbaa loolu na. Ah? ma ne mbaa wóor na di bëre jóg koo xam. dafa xam na ko moom mi ko entraîné. xam na ko. am na solo. sant yàlla bu baax. am nga jaam on a grâce euh, mu mel ni comme li ma ko laajee berkat yi rek. Lagros bi bëre woon ak Kouens ak ak Moussa Ndoye ndax Lagros boobu dañuy dañuy gis dañuy gis bu ko gën a frais dimanche wala. comme guddeeg bëccëg en fait bi bëre woon ak Kouens ak tey bii comme guddeeg bëccëg. parce que bi mu jógee ci combat boobu moom ci boppam ça lui a servi de parce que mbër bu mel ni Kouens parce que jàppal ni Kouens der la. c'est un vrai champion La grosse nekkul tenir pendant minutes action sur action te mënul ci homme dara te fekk que La grosse dara je pense que il a réfléchi te xam aduna ce métier dans Il koy jox cëram la def mu bëgg a combat jox ko les moyens yi nga xamanteni mom mom la soxla mu ñew moy j'attaque je cogne et je gagne on lui a donné les possibilités de le faire donc dimanche mom moko téré neex. ba dimanche inshallah Bouki, bukki xam nga tay jappal ni bukki la té bu dimanche Bouki. bu nekké ci all bi ñu jël almet jox ko képp ko am sa luy lak jëlee ko ci all bi bala mo ñew ba dimanche. Ça bouge. sa lay jiin ma dé ci door. Njaay sëtub Maram Jéen bàyyi maam